daje bi tay liko ko moy mooy que ni nek ay doomu Pikine nek jigen tamit gis li nga xamni moy suñu hôpitalu bop hôpital départemental bi ñuy wax Camp de Thiaroye ñu d'après suñu renseignement ñu jot ko ni que ñom dañoo nek en rupture manam sen banque de sang bi nek fofu dafa nek à à zéro en fait stock bi donc ñu yek ni d'après les normes euh, de l'OMS sen banque de sang yi war na mën a 10 sur 1000 ñun au Sénégal au niveau national 4,5 sur 1000 donc loolu ndaw la donc bañ jotee information bi ñun aussi étant jeune politique ñu bañ a yem ci politique kase euh, di dem dugg ci acte social ak leneen ak leneen donc ñun li war en premier lieu mooy que ni woote parce que dañoo nekk ci contexte boo xam ne mënd mi pandémie fièvre Covid bi ñëpp xam na ni day bañ mbooloo day bañ leneen ak leneen mais aussi mbënd mi day tax. ñu bëri mënuñoo jug dem ndax nit ñi tamit euh, mënatuñoo bàyyi seen kër yi di dem mënuñoo dem si hôpital yi parce que ñi ragal dañoo ragal hôpital yi ndax Covid bi aussi ñu ne donc ñun dañuy déplacer centre bi indi leen fii au niveau du département de Pikine organiser li nga xam ni moom mooy journée don de sang mun a joxe sang sauver ñi nga xam ne suñu yaay yi suñu mag yi nga xam ne ñu ngi joxe joxe euh, ñu ngi wasin Il y am ay complications soxla transfusion di jox les les accidentés yi nga xam ñoomi dañ koy soxla ak ñeneen ak ñeneen yi maximum buñu maximum bi 108 personnes dina dina baax donc 108 personnes yi lañu am nañ ko bañu ko waxé am nañ ko ñu ëpp loolu sa présenté wu nañ ci kaw dafa inapte tension normal ñu xol leen peut-être ñu nekk parce que jigen ñi lañ si gëna invité parce que jigen mo xewle donc ñu si bari tamit nekk en période ku nekk ci période do mëna joxe kuy nampal aussi do mëna joxe yooyu yëpp c'est pris en compte ñi apte ñu nekk au nombre de 68 personnes yo xamni ne joxe nañ ko si lo xamni en rupture la woon amuko ko woon il faut que ñu ñu waxat ko moy que ni banque de sang bi nek au niveau départemental ci hôpital Thiaroye amul à zéro la nek à l'instant d'ici peu dañuy wacc sur le terrain ci côté inondation yi ci communes yi nga xam tay ji ñu ngi sentir fofu épicentre bi inondation bi lañ dañ fay dem en tant que jeune jeune fille dem def li nga xam moy suñu investigation investi investissement humaine dañ ko fay def investissement humaine bobu dinañ moto et tout aussi président nañ fi structure bu juma bu bi juma aussi ñu ñëpp xam nañ di bam paré amagul garab bu donc pour répondre mais matérialiser li politique du président Macky Sall